What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? So I'm a guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to reintroduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. <laughs> there you go, my pub J, Ibrahim Mondao, you know what I'm saying? Abakar Pui, wow, from Paris, wow, enjoy your stay, some gang, you know what I'm saying? The big Luburi, you know what I'm saying? Ibu Cham, you know what I'm saying? Uh, Mustafa Mane, Ismail Sise, become my uh, Fadel, you know what I'm saying? Mamadou Fall. Euh, Ibrahima kii Aly Ndao gi sàcc suma xaalis YouTube dem France tukkee ko baal naa la quoi alal amul solo bon sama gars yi tey je de l' acte 4 l' acte 4 de Macky Sall ah mooy euh, acte 3 bi xam moo demoon euh, mooy découpage affaire maire yeeg yooyu noonu quoi mais maintenant il est en train de passer à l' acte 4 acte bi nag Barthélémy Diaz il nous a mm. aidé à mieux comprendre ce qu' est l' acte 4 quoi man bon maa ko tuddee acte 4 quoi Barthélémy moo ko leeral mais man acte 4 laa ko tuddee qu' est ce que c' parce que acte bi moom mooy maanaam euh, découpage yu maire yi wàññi doole maire yi maanaam da ngay nekk maire tu dans ton bâtiment mais amoo budget amoo loo defaree tali amoo dara décor da ngay def comme li dal waa euh, Daouda Niang si mairie mairie Tëngéej bi tali Tëngéej ji ñu ngi bon bon impraticable boo fa jógee dem juuti ba mais je te jure route nationale bi moom ay dóor ay kilam léegi ay pax ay pax dóor daan rek a ci manqué parce que lan Macky Sall léegi buy voyager Euh, péage bi lay jël donc route nationale yi léegi moom mën nay gasu mën nay kàmbu yoonam newu ci waaye bu doon ne tey jii bu fekkee da ngay dem na euh, àll bi nii euh, route nationale bi jël yaakaar naa di ngeen ko di ngeen di ngeen di ngeen ko di ngeen di ngeen entretenir route nationale bi quoi mais route nationale bi boo fa jaaree je te jure ay kàmb ñoo fa am te xam naa li am tëngëj nii si yeneen route nationale bi su ma su ma amatee jot rek naa fa dem fi mu nationale bi nu mel quoi route nationale bi amut ay kàmbam moo fa donc mu ngi si acte 4 bi acte mooy wax am ah. bien vrai que non Barth mon vraiment non opposant là quoi Bart mi ngi bañ vraiment c'est un exemple de d'opposant quoi il fait la prison pour la la pour ses principes dañ koy tëj mu génnaat day du changer sa veste quoi tu vois il reste constant donc tout cas bien ni ma koy pas mooy euh, selon d'après Bart, d'après Bart, comme booy def philosophie d'après Socrate d'après waaw d'après Bart nee président Macky Sall bu mu diagnostiquer ba xam tay ji dafa am les quatre grandes mesures yoo xam ne tey jii moom mënu koo gagné quatre grandes mesures nekk Dakar Thiès Ziguinchor ak Touba ak Touba ah, ak Touba bon man quatre grandes grandes majeurs laa ko tuddee mënu ko gagné parce que bu fa demoon gars yi dañ koy dóor avec un score fleuve quoi tu vois donc moom boo xam ne mu loolu mënu ko gagné Barth nee na d' après ses explications le président il est en train de mijoter quelque chose comme quoi que il va nommer euh, les maires euh, les maires de ces de ces de ces de ces communes euh, par décret les nommer quoi. comme tey xam na ne Ziguinchor su mokk na Sonko ko koy jéem a nommé par décret Thiès Idriss Seck moo moom même lu mu ñàkk ñàkk présidentiel moo ko moom nañ ko bàyyi ak am a nommé décret euh, comment dirais-je Dakar bi xam te Khalifa Sall dafa am doole Saint-Ville da koy gagné président tamit nee na foofu da koy nommé décret Touba bi nga xamante ils sont restés dignes malgré ilaa Touba bi leen defaral ñoom ñu ne dara fëkkul seen bët léegi sëñ Touba defal amul lu a defal lu ëpp loolu noonu mu defal ilaa Touba ñu voté sanction voté voté voté ay Sonko voté ñeneen moom it foofu def naa ne foofu tamit xam naa ni dafay jéem a nommé par décret tu vois wala par ndigal bokk mën nañu wax ndigal quoi parce que foofu ndigal lañu fay xaar donc mu nekk affaire boo xam ne tey jii euh, dafa nekk benn dictatorship dictature parce que boo xoolee Macky Sall nu muy gérer Sénégal fu mu ne nii euh, dictature la gën a nuru quoi damay ñëw gën a développé quoi tey jii boo xoolee Macky Sall yi ñëw mu xool élection yi xam ni candidat yi ñu bëree si on a une, quarantaine de candidats ne que que 5 pour éligible pour ñu les ko day métti parrainage. parrainage bu mu parrainage mu dugal parrainage parrainage bi parrainage, day tànn ñi ko neex mu ak avant mu disqualifier Karim Wade euh, euh, Khalifa Sall pour une pratique une ancienne pratique boo xam ne ay Diop def ko ci Diop dans durant tout son règne musul bénéficier wu avance kees mais ñu yëpp intéressé wu ko alibi la bu mu jël comme policier bu bëgg japp ben trafiquant ne ko taxawal mu taxaw mu jël yamba bi dugal ko si poosam fuyee ne ko lii la la xanaa du yamba kañ dem commissariat bu ko yobbo dinañ kan bi du wax parce que policier policier solidarité la affaire ki leen jaay caay caay yobbu ko tejj ko non def Khalifa Sall éliminer ko parrainage bi légui mu ne gaay bayi bàyyi leen Sonko candidature am jàll su jàllee ñu jox ko 3e c'est sa première participation comme bu day mondial rek su fekkee dafa jël 3e du jël du jël temps Ocass day nek lu grandiose yi moom bi nga xam nañ ne sax moo deuxième donc mu bàyyi Sonko participer ci élection yi après mu jox ko troisième euh, comme lot de consolation defaat dama de mu mu ci kiiwaat noonu mu nek genre dictature genre dictature continuité rek muy tek ay pion ñu naan monsieur le président Macky Sall un grand un fin politicien N'a fekk yi loolu la wax hein bo xam Macky Sall c'est un fin politicien dafa am ay stratégie barki rasoulallah mais fekkoon yow c'est un fin politicien. Macky Sall da ngay da nga am benn eh, stratégie wala tu es un stratège man mii kay man mii man ab dof laa musuma toog ci banc waruma mën a sax xam euh, maanaam yow li ngay li ngay teg parce que boo yeewoo super intelligent di dam yee ndoxtu yi ngay teg cuune waru ko waru ko gis il faut nga nekk kii mais président nga baal ma mais li ngay teg c'est trop élémentaire quoi lu teg xool dara mu jafe mënoo ko amee nii nga jaar par la petite pour teg ko quoi mais vraiment bu ñu demee bu ñu ma ba maire yi maanaam tey jii xam loolu ngay def noonu doo ko def si doo ko def Fatick doo fa demee par décret parce que amul benn enjeu politique à Fatick tu vois mais nga xool ne tey jii boo gañewul Dakar gañewoo Ziguinchor gañewoo Thiès tu perds le Sénégal parce que ñoo ñoo les grandes mesures quoi les quatre grandes mesures laa leen tuddee quoi nga tegaat na léegi par décret nga leen di fal monsieur le président ngay bum ngay bumi lu lu la euh, na doole man c'est que balaa 2024 dina am affaire yoo koy jéem a créer parce que li tax nga bàyyi ko mu participer pour yow candidat réseaux sociaux la te tamit les les gars nañ la ba nga am sa 58 pour tout planifié nga teg ko nga éliminé ñi la naqar yi nga xam ne kii nga bàyyi de consolation parce que boo ko éliminé woon tey ji ça va faire un grand brouhaha nga bàyyi ko mu dem jox ko troisième lot de consolation c'est sa première participation au bët li koy fàtte du ko gis tout le temps rek man je me mets dans ta tête li ngay wax mooy lan non les ñu génn boo leen sotti ndox mu tàng ñu daw du ñu génn du dañuy wax rek genre Malathion yooyu fi nekk ak ñeneen ñeneen dañuy wax rek soulèvement populaire du fi mës a am damay def décret bi dina jàll parce que tamit mooy li ma wax rek essayé nga ko mu neex da nga koy essayé waat essayé nga ko ci comment dirais-je euh, euh, kii bi parrainage bi teg imposé say loi mu jàll. nga ñëwaat tey jii fekk ay candidats yoo xam ne tey mënoo nekk de potentiels leen mu jàll léegi ñu ngi naan troisième mandat waxoo ci lu leer waxoo ci moom nee na moom bu dee yow doo présenté troisième euh, mandat moom lu wax moom moo koy naan quoi parce que nee na da naa ne da ngay imposé wu tu vois da ngay mandat parce que tamit nguur moo nekk loo xam ne tey jii maanaam man li ma ko exemple bi dafa dafa dafa dafa dama jege man ba dama comprendre nguur dama la chef bi nekk fii ñun à Rufisque de quartier bi nekk fii Euh, que je salue de passage que je salue de passage mon père quartier vraiment def intervention yu solo ay doomam samay xarit lañ mais tout le temps lu may tooñee ay doomam ma leen booy man comprendre naa lu tax Macky Sall wala ay bongo di agrippé aussi pouvoir parce que Adama Sall mi ah, ah, euh, suñu bi ne fii suñu kii chef quartier bi ne fii Mamaya Badara Mamaya Sène mu nekkoon maire fal ko tu vois ba léegi il s'agrippe à la xam nga ko xewoon kii chef de man comme que gars yi chef de quartier moo neexee nii ba chef de quartier yu bëggul bàyyi au moins la ko xam ne tey da dem ay cortège ay 27 oto rombul 37 oto rombul soldat yi ne fii monsieur le président bi biir palais ngay bum di bumi bo nguur moo xam ne tey jii boo kiiwul nga wala dara mais mais ma lay ma lay rewind di la di la fàttali ne la monsieur le président Kadhafi moo la pon pouvoir gis nga nu mujjee Blaise Compaoré yàlla mën na yéex a atte mën mën na bañ a gaañ atte si tàng tàng tàng bi mais atteem tout temps dina ñëw Blaise Compaoré bu mu waree Thomas Sankara def ko lu mu koy def gis nu mu so nu mu génnee fële Burkina il est sorti comme un rat mu fële amul fu mu ne yàlla day ñëw seul Dieu est juste mën na yéex a na ba nga bëgg fajal sa mais su fajee rek nga xam ne faj na donc monsieur le président ñun tu nous avais promis la rupture agent bi gis ci yow yaakaar jàpp président tey ji billaahi bu ñëwee day change ñoo ñoomoon espoir ci yow quoi ak fi nga jógee ak ni la Ablaye Wade dàqee di la jéem a toroxal yàlla yëkkati la nga ñëw oh, mu audace prendre ton courage à deux mains ne Karim Wade kaay leeral défier Abdoulaye Wade nga génn ci maanaam ne mais kii bu ñëwee tey jii day day day redresser la kii bi euh, maanaam kii bi affaire yi day redresser affaire yi mais président fu ni kenn xàmmeetu la kenn xàmmeetu la sénégalais yi ngi bëgg a dee amul emploi amul dara mooy li may wax toujours rek Abdou euh, Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade defal defal na péage bi ak carte d'identité yu bees yeeg yeneen affaire yi université de Bambey yooyu noonu yow ñëw boo paree looy wax terre bi da ngay campagne mais Sénégal leneen loo xam tey dañ ko commencé ñàkk ndax ndax ndax jikko yu jikko yu bon yu commencé yu ñu commencé ñàkk jikko yu baax ñu commencé ñàkk ndax seen euh, gérance bi ngeen di gérer nii te loolu noonu man dama yaakaar ne Sonko bu ñëwee moo war a ñëw pour defar dëkk yi Ablaye defar na péage bi yow defar nga terre bi bàyyi leen Sonko ñëw defar defar jikko yi moom rek mën a ñëw defar jikko yi su ma toujours ma koy wax damay ñëw samay samay débat bu ñu waxee ñaamaan Sonko kese mënul changer dëkk d' accord il faut l'aide de la population mais man dama naan barke rasulaay gis na changer dëkk changer dëkk méttiwul il faut qu'il y ait le bâton la punition derrière tey ji toujours man leen entreprise boo xam ne tey ji gars yi xëy ay dix heures ñu ngi xëy onze heures bu ñu amee un chef rigoureux un DG rigoureux koo xam ne tey six heures du matin lay xëy chaque à sept heures il se pointe tous les bureaux mu def benn une visite de xam ne ni nga koy waxee noonu bureau bu ne muy fëgg gars ñëw nga job ñëw nga bu ko defee quatre jours semaine mu def ko semaine employé yi xam ne kat à chaque euh, matin quotidiennement euh, DG ñoom ñëpp ils vont se pointer avant l'heure mais noonu la njiit di tey jii mënu ma concevoir tey nit rey nit wala nit violé nga jël ko di dimbali njabootam leen jox lekk ak naan gracier ko bàyyi benn booy boo xam ne tey ji maanaam peut-être benn bëy la jàpp bu guddi xiif amoo loo ngeen coob ko booy boobu noonu mu dem jëf ko mandat de dépôt cinq ans ko xool gis koo xam ne tey ji maanaam dañ koy épinglé si ay ay maanaam comment dirais je ñu koy épinglé si ay euh, comment dirais je quatre mille cinq cent ñebe affaire yooyu noonu cent cinquante millions par légume si ndug euh, ndugu nga koy protéger nga koy protéger et pendant ce temps doomu baadoolo bi peut-être moom benn gaz de station mandat de dépôt yaayam di kenn gracié wu donc monsieur président yaa am na ma nga fa fayir emploi ci dëkk bi sa gars yi bu ñu la ko ne yow dëkk bee nga dox dañu lay nax ça ne va pas du tout fii emploi yi xam nga la boo nekkee jeune amoo loo def ñaari tërmus ngay gàddu jaay sa café Touba wala nga dem euh, Colobane di rangu jël daal la après jaayaat wala noonu genre jigéen ñi jaay ay madda baxal tout le monde est devenu vendeur dans ce pays ñëpp business ajouté dëkk bi bëri ay dóorkat ko lebal xaalis mu jaare fa daw nit ñi amatuñu kàddu mbëggeel amatul intérêt mën nga ma yor mënuma la yor ñu kii ñi léegi moom dañuy day day day xamaa ñu koy waxee noonu dañuy pare foot xam lu ñu koy joué noonu quoi beneen source d'emploi mooy bi booy tax nga soxor ñàkk mooy tax ngay ñeewaate ñàkk mooy tax nga am jot bay jëw di lijjanti kii li muy def ak nii balaa may du ñu naan tubaab bi du ñu ñu lijjanti dañu tubaab bi jëw lijjanti seulement amuñu temps parce que seen occupation yi moo leen la ñuy vaquer de telle sorte que duñu talal euh, euh, lijjanti Dominique wala Véronica mais tubaab bu liggéeyul moo dàq commerce fukk euh, nit ku ñuul donc dama bëggoon monsieur le président nga indiwaat espoir te deux mandats yi boo ko defee basta sort par la grande porte Sénégal bu ñu ko indee émeute toujours mën leen lii xew ay Congo ay Rwanda comment dire ay Rwanda ñooñu ma defe yenn yi bu lay dal yenn yi bu lay dal da ngay defe ne bu dal ñeneen ñi parfois da nga defe yow lii c'est un film ça ne doit arriver qu'aux autres mais bu dalee sa kaw si nga xam ne en lii c'est une et ça peut frapper à n'importe exemple mu lay jox mooy c'est la mort quoi man bu njëkkoon damay toog bu ñu ma diw gaañu kaana dund kaana quoi damay ah, naa affection affaire yooyu noonu quoi ko yàlla yërëm ak yooyu noonu quoi bu ma ñëw ñu tàgg ma xam mu dal ma mu si proche de lui non c'est la de xaaral moo fekkul waaye su fekkee damay dem mais bu njëkkoon ay lépp lay def da nga ñëw ñu la kii dee na mooy la même chose moo am ci affaire guerre civile Côte d'Ivoire na ngay reyante mais y a quelque chose qui a déclenché cela parce que Sénégal tollooguñu foofu moo tax nga ngeen naan non fii daal jàmm rek fi al kii moo fi tëdd kële ma Rwanda baax mosu faa tëdd doon ma Côte d'Ivoire nu mu toll ñi baax yi ñaan ngi fi def ak affaire nañu bàyyi yooyu ñuy def Macky Sall fi nga jëmee dëkk bi loolu mooy indi soulèvement populaire loolu mooy indi ji soulèvement populaire parce que les Sénégalais en ont kër di ngay gis boo nekkee borom xaalis boo waree wàcc 9h ñëw sa jabar naan ka ndax ñi ñi ñibbi nañ wala dara ay 2 da ngay wàcc 9h mais 2 du boo fi nekkee xaw fee tane dañ lay acculé ordonnance lu la ñaan lu suba ngoon t'as plus de vie sa jabar mooy mujj sax booy nen boo fi nekkee sa mu la newoo fi parce que day dem da lay yërëm Pape Diop la moo tax jabaram dàq manjaay boo gisee mu ñëw ñu ne Pape Diop na ma euh, manjaay kii comment dirais je jabaru Pape Diop dàq na manjaay non kii lu tax mu dàq moom maa mais imagine chaque jour ngay buntu kër tu vois une centaine de personnes qui qui t'assiègent mais neexul kenn t'as plus de vie tu vois donc il faut analyser yooyu noonu quoi donc monsieur le président Qu'on ne la dëkk bi neex na da lay nax dëkk bi suñu mu un minuscule groupe ces gens qui t'encouragent à avoir un troisième mandat parce que ni si poste boo xam ne ay poste dóor la yaakaar nañ ne bu Sonko faloo dootuñu ko am ñooñu seen yoon newul ci maanaam boy ñi ngi jàng à 100 dans une classe ñooñu seen yoon nekkul ci maanaam tey jii Euh, euh, boo feebaree fii amoo am problème mu dialyse wala nga am dina ay problème mu cancer du sen wala dara nii bu la fay Faye Sall jotul sa bu toxul si nopp Marème Faye Sall yow bi dama amee nga gas sa kàmba dee nga monsieur le président yow yi nga priorité yi nga wax sama bëri fu ñu teg Sénégal boo ñëwee tay jii nit ku nekk feebar feebar fu ne lay dal nit ku nekk xam tey jii dañuy feebar nga ñëw médecin yi ne duñ la laal tant que joxewoo assurance wala président daa te yaa ne couverture maladie couverture mais fa la fa waroon njëkkee mais Sénégal soo feebaree dee dénga soo feebaree dee dénga ko amul lu muy lekk nu muy jëmee di jël ay euh, journée quarante cinq mille wala sax trois jours soixante mille fu mu koy jëlee l'état doit te prendre en charge ñooñu nekkuñu ay mille si Sénégal am na feebar yoo xam ne ça ne court pas les les maisons ku amee ay jalise ay cancer du sein yooyu état bi moo la war a jël soo ne état bi mënu ko du ko mën a comprendre parce que à côté tu vois quelqu'un qui prend six mille milliards à côté tu vois quelqu'un boo xam ne tey ji pour un voyage d'affaires trois cent cinquante millions monsieur le président après yow nga ni ñooñu mu mais mais dafa am farata ak sunu ñooñu dañu ne yooyu yoy moy tax nit di ci agresser wala muy nek un hater wala muy frustré wu parce que tu es dans un pays bo yew café Touba bu fukki dërëm ngay naan or or or ba añ yenn say bo bo boo ci bol bi boy yee ñoo fay bëri nga ñam ñaar ko dul daw ñi dem ci ay ngénte ak dëj pour mën a nga tok ci radio ñu naan 5 milliards ak 350000 voyage no do doo seen range mais lool moy def lool moy ni moy indi émeut moy indi frustration parce que nit ka sa ngay doon jang bac plus 7 kii daa ko la jàng ëpp la dara si ay ville nga gis ko ñuy gala yaabe di la kii ne te dëkk bi yéen a ko bokk tu vois dëkk bi doxul monsieur le président dëkk bi doxul ay clinique day c'est bien beau nit ñi nit ñi mais la saako bu deful dara du taxaw nit ñi taluñu yooyu ku amul loo manqué sa douche bàyyi ba muy taw ngay vider sa douche kooku bu ko waxee clinique day bu ko waxee clinique day képp koo xam ne bu demee ñu ne euh, oto vidange ñu ne ko vingt cinq mille wala quarante mille ko coupé ah day ñaan yàlla mu taw bu tawee mu vide poosam naan ka ay cleaning day kooku il a d'autres préoccupations loolu Sénégal yi loolu la ñuy dund yooyu la ñuy dund seen Macky Sall nit ñi dañoo sonn les gens sont fatigués ci sa entourage dina ko war a wax te nga sorti par la petite porte moo gën ay àdduna jarul loolu ay nguur jarul loolu Macky dañuy dee bàyyi ko fii def nga teer jéemal def benn ay posé ay actes yoo xam tey ji maanaam ah, yoo xam ne boo jógee ñoo ne sàllangaar yaa defoon lii yaa defoon lii nguur kenn du ko lekk te doo mës a doyal tey jii boo ne deuxième mandat deuxième mandat bi jeex nga xëccuwaat troisième su troisième bi suñu ne basta abana da nga sañoon amaat quatrième parce que nguur moo mel noonu parce que da ngay nam ay doole pour parce que nguur boo ci toogee fii en Afrique nga wàcc dala neex boo ñemee dret rek doo wàcc soo ñemee dret parce que ce sont tes pions la preuve en est que xoolal procureur yi la ñuy def sa procureur yi xoolal la ñuy def dossier Sonko 94 milliards amul suivi il n'a pas le droit de porter plainte pajaji pajaja pajaja loolu tamit mooy demaat si kii ni donc ni nga manipuler say procureur ba ñuy kii noonu nga leen di manipuler ñuy joxe résultat mais yaa war am conscience xam ne nit kese nga benn nguur moo fi ne muy nguur yàlla te mooy éternel amul beneen nguur boo nekkee wàllu yi wàllu yi kamal da ngay dem lu yàlla defalul Cheikh Amadou Bamba def ko suñu Abdoul Aziz ah ko defalu ko ñoom kii xam plus grands yow bu dee yow kese t'as plus rien à prouver yàlla sa suturaal na la Ablaye Wade xeex ni defoon na yow dootoo jarate dara mu ñëw la le ma Macky gëmal ne yàlla am na mooy joxe marquel sa pas par après nga dem ku nar a romb sa dee nag dee gu ñaaw nga nar a dee ñu naan géwél bu la répété euh, ci ci ci ko soo par la defar nga teer jéem ma defar leneen assuré médecine bi sénégalais yi di faju assuré jàng yi booy nekk ay cent par classe ñu dem ba nekk par vingt assurer jàng bi booy amul néew doole nga toussement yi comme man ñu naan toussement sama temps ñoom papa yeeg noonu ngay tousse néew ji doole yi defal social Macky Sall la marqué sa empreinte yërëm population bi fa nga jógee dafa métti 40 degré la Fatick soo tàngaay bi ne lu ma Fatick gën a tàng fu mu ne nii t'es pas né avec une cuillère cuillère dorée dans du defoo loolu noonu donc yow tu étais mieux placé pour comprendre li Sénégalais yi dund mais ma da nga ñëw vraiment kenn xàmmetu la quoi kenn xàmmetu la bul nangu ñooñu bul nangu bul bu naan buur ayoo dog ay bul nangu ñooñu noonu di nekk sa ginnaaw saa yi du dugg si si si golawaar yi mënutoo am loo amuloon sa àdduna la vie t'a tout donné am nga oto am nga jabar nekk nga président même si bu ñu demoon ba mille ans ci kanam fu ñu ne la joor Abdoulaye Wade kii di dañu am le président Macky Sall même boo defee lu bon ton nom est rentré dans l'histoire mais qu'est-ce que tu veux de plus tétanisé au pouvoir comme les Mobutu les kii nii tu as fait deux cinq ans imagine nga def discours ne Sénégalais yi amul lu may kii wag nii j'avais promis deux mandats def naa constitution bi day ma de cinq ans je m'en arrête sama fi ma yem l'état c'est continuité les institutions les hommes passent mais les institutions demeurent su ma paree sama lii nii ak lii nii damay dem keneen ki ñëw ma def ko pa jox ko jox ko ma doon gérer ak yeneen yi mu jàll nga mooy bu dul jeex mais nga nekkaat di posé question candidature waa Y'en a marre génn frappe youtubeurs yi ma leen man di wax ñeneen a ngi wax ni ku la war a xasal ngay tëj di téye sante finalement tu deviens ridicule c'est pour la grande donc sama gars loolu woon tey wax ji bëri na trop quoi mais rek mooy li mooy li may wax quoi dictature bi dafa commencé bëri quoi tu vois saa su ne rek nga jàpp affaire jël Sénégalais yi anesthésier leen figure anesthésie fu la neex ngay xott ñu toog nii rek nga defee ne dee nañ xam nga ni anesthésie anesthésie ko taxul mu dee bu dose bi jeexee day jóg de dama gis àll na xam ne dose bi nag di xot nu la neexee di xotti deux jours sans eau à Rufisque deux jours te ndox moom di nga koy doyee dugg sangu moo ci gën a néew deux jours amuñu ndox courant bi ku dee bàyyi mbëbët mais mbëbët yooyu da ñaan yàlla keneen yeggali ba sa way du fay sama gars loolu doo leen bi sama kanam gu ñaaw gi génn Maola Thion TV yi nga seen the best is coming wax ji bëri na trop trop trop trop je parle du coq de l'âne mais xam nga sama xol ay jeex rek damay bëgg di gën ñaaxaat gars di gën a sama gars yi doo leen a la sama kanam gu ñaaw génn eh Badara Pouy from Paris I got you my bro Ibou Thiam I got you my bro Baba you know what I'm saying Bilal Dieng Diouf yi maa leen di bëggee Ibrahima Bondaw Pape Dieye keep it locked